boo xoolee li fi xew premier deux juin dafa de dafa dépassé affaire manifestation politique rek manifestation politique ñun ñëpp fekkee nañ ko def nañ ko ban ba ban qualificatif nga koy nga koy jox euh, coup d'état manqué insurrection ratée en tout cas li wóor ba wóor mooy am na des actions yoo xam ne action du action wu politique action dafa jege subversion subversive waaw parce que attaquer ay usine ndox attaqué système de transport attaqué ay autoroute te parce que attaques yooyu ngay def yëpp mais dalul ci gouvernement bi parce que tey bu ñu attaqué le système de transport góorgóorlu lay dal bu ñu attaqué ay affaire ndox ndox mi bu ñu manqué ñun ñëpp lay dal li ma gën a metti mooy attaqué université de Dakar attaqué université de Dakar. place le, place su jàngukaay. place ba ñu war a defaree nit ñi dem attaqué bibliothèque. mais mais mais loolu dafa jéggi dayoo dafa jéggi dayoo moo tax mbir moomu Sénégal nañu yeewaat waxuñu ne ñu bañ a manifester manifestation dafa normal ci démocratie mais manifestation bu nekk dafa am cadre bu mu war a yem parce que tamit. acteur politique ak ñi leen di àndax ñoom am nañ droit waaye dañu war ne dañ ne nekk benn société boo xam ne dafa am ñu fa nekk société balaa muy équilibré kii bu exercer droit am du yàqal keneen ci ay droit am waaye bu may manifester dëkk bi yëpp arrêté. c'est injuste. c'est pas équilibré mais mais, gouvernement bi dafa qualifier les choses d'entreprise terroriste mu am certains ñuy dem plus loin en disant que dafay rappeler un peu. le processus de destruction du Mali bi ñu ko entamé. Mhm. l' attaque de l'université ñu ñu ñu comparé ko avec la destruction des sites touristiques de des, des sites historiques euh, de de de Tombouctou euh, la ñu tudd euh, la les attaques contre les centrales d'eau les centrales euh, les centrales euh, d'électricité nu mu tudd les certaines stations et structures importantes yi ñu yi ñu attaqué ñu ne ñoom dañoo dévier un plan terroriste dont l'objectif final le 3 juin était de faire tomber le le le le régime. man li ma li ma est-ce qu'ils est-ce qu'ils exagèrent. bon kooku man awma euh, je suis mal placé awma toutes les informations pour pour valider ko wala pour invalider ko mais li am solo mooy war nañ ko gëstu bu baax a baax li xew yépp nag parce que tamit bu ñu yem rek ci affaire attaque yooyu parce que tamit bakken yi daanu tamit war nañ xam. nu mu demee. 16 ak li ko jiitu woon. ak la ko jiitu mars waru waruñu bakken dafa foor loolu waru jaar noonu. war nañ xam bakken yooyu ni naka naka naka la daanoo. loolu c'est très important. ak impact économique. lépp dañ ko war a gëstu. ak impact psychosocial bi. bien lépp dañ ko war a gëstu. parce que c'est très important ñu xam li xewul naka la xewee ak lu tax mu xew. c'est très important et que des mesures soient prises. du ma ci avancer c'est-à-dire que dañu dem ba génn les résultats population yi xam lu xew nu mu xewee fu mu jaaree ñan ñooy responsable de tous les côtés kuy responsable nañ ko wax même bu ñu naree juboo déggoo dañ koy teg ci dëgg dañu xam li xew ba pare parce que tamit li xew dafa garaaw torop torop torop te Sénégal yi dañu war a yeewu lii moom lu ñu mun ci def. noo ñu mënti def dañ ko def lii waratul am ci réew